sàkku si ñi nga xam ne ñoo jiite football bu Sénégal président gannaaw tamit teewaay bi fii euh, tey yéen hommage ngeen mën a defal ci waay daawdu bi nga xam ne dem na muy Gaston Salif Menga. inna lillahi wa inna ilayhi rajiun nit bu baax dem na. celui qui a beaucoup fait pour le pays. pour le sport en général. Euh, nekkoon na membre fédération sénégalaise de football. mu yoroon marketing bi. indoon fa lu bëri. donc euh, ñu ngi ñaan daal yàlla xaaree ko aljanna Euh, aussi fépp fu nga xam ne njabootam ak Sénégal yaakaaroon na ko yàlla na fa yàlla taxaw daal.